asalaamaaleykum ah tey nag série bi daf ma neex daf ma neex daf ma neex laa ilaha illallah euh, Marème moom dama ko fan franchement man ñaareel laa mais neexul ba neexul man daal Marème lay wër non non non non Marème lay wër parce que xamatoo góor ñi loolu def dagan waa Marème moom waa Marème neex nga ma de ah Marème Marème yàlla na la yàlla def muy ñaareel dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ah, ah nag waa maa ngi xaar na ba kenn bañ Marème nag ah Marème guddal fan maram yaa baax si góor ñi parce que leneen rek la dëgg neexul. asalaamaaleykum li xew TV ah théâtre bi neex na tey neex na torop chaque jour sax day neex mais tey la rawati neex na non Marème nag daf ma neex kontaan naa ci ni mu doxalee kontaan naa ci man bu baax a baax parce que laala moom moo tooñ laala moo tooñ moom parce que ayu Marème waru koon a xajamal di ci invité ay xaritu. jëkkëram loolu waru koo def parce que loolu lépp ay affaire fiiraange rek la moom moo tooñ moom wax dëgg yàlla même Marème ni mu tontoo mère bi neex na ma torop waa neex na ma parce que sa yaay jëkkër danga ko war a jox cër comme ni ngay def sa yaay wax dëgg yàlla lool kontaan naa ci loolu moom surtout Cheikh Diagne Cheikh Diagne moom dafa ma neex seex moom dafa neex parce que dafa am ful la waaw noonu mu doxalee noonu la xam nga rek xam ne dafa bañoon bëggoon lu neex laala rek moo taxoon mu toog mais toogul ak sagom daal neexu ko mais la moo war a xoolaat boppam xam ne wujje bokk wërsëg la lu moomul daal ko joxe jël loo moomul moom baaxut waaw théâtre bi nag neex na trop te dafa am sens waa am na sens trop. asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu ku nekk ak sa tur ak sa la wala seen seen Franks en fait wala seen la. vraiment maa ngi leen di leen nag waaye léegi léegi laa seetaan woon wala euh, euh, vingt six waaye euh, six épisode bi waa seetaan naa ko vraiment wala neexoon na macha allah neexoon na neexoon na neexoon na neexoon na mais par contre alors voilà man dama bëgg woon jox rek benn explication si Mariam si ka Mariam waaye Mariam xaw ma waaye mooy ñaareelu seex bi quoi. waaye vraiment vraiment moom lu muy def nii alors wala ëpp na quoi ëpp na trop trop trop trop trop vraiment jabaram la benn on est d'accord jabaram la mais lu muntu doon lu seex munta def rek mu xaar ko këram lu seex munta def mu xaar ko këram bu ñëwee alors wala lu ñuy defante ñu defante si biir kër gi par rapport di dem kër ñoom làllo vraiment loolu ñaawal naa ko man ni moom ñaawal naa ko quoi rafetul en bis dem na foofu wala euh, ñoom dañoo amoon gan di troxal si di troxal seex si kanamu gan yi quoi loolu rafetul vraiment en plus euh, daa dem seetu si yaay seex nekk alors lu muy waxee si yaay seex moom tamit alors voilà vraiment du tout c'est pas bon vraiment vraiment rafetul dara dara dara dara dara Mariam euh, Mariam xaw ma no na xool boppam quoi na xool boppam waa seex nag ak raqam bi vraiment vraiment ñoom vraiment lu ñuy def nag ñaaw na waaye raq seex bi nag lu mu bugg a def léegi moom dafa ñaaw lool rafetul daal vraiment vraiment mais bon comme Lalla lu mu doon waxoon rek Lalla lu mu waxoon nag vraiment wax bi moom euh, man de moom vraiment ñaaw ma ci ñaaw ma ci ku ci quoi vraiment rafet na Lalla lii rek la waroon tontu quoi fait vraiment man sama xalaatu gàtt quoi fait sama xalaatu gàtt <coughs> waa épisode vingt six bi trente six bi moom neexoon na macha allah neexoon na lool waa kaara kii bi nag. waa kaa Racky bi nag gars bi il faut mu comprendre Racky gars bi il faut mu comprendre Racky Racky yàlla wala vraiment ala kulli haal ba léegi moom moom la bëgg quoi fait moom la bëgg pas boobu bëgg woon trop pas boobu bëgg woon kii rek alors si Racky quoi ak yaay ji mais bon Racky boobu léegi euh, si gaynam bi la bëgg ko waa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax béggee salaamaaleykum lu fi xew tv na ngeen def bàyyi neex na neex na neex waaw kon ndekete rakki mère bi du yaayam man kay ndeke jekk ma xamoon ni yaayam métti diñ ko daan teg yépp loolu nekk yaay waay ba pare mareem ci mareem nii rek lañ koy bàyyi <laughs> mareem de tojate na fi mareem daal tojate na fi moom waaye kenn du laal la laal la ndekete wax ji fi bari de ndekete tàppet bu mag la mareem na ko yée rek mu waaw kay man lii laa bëgg ci xale en tout cas daal Marème daal moom moom moom moom noonu la daal ni fi mu ko jàpp daal foofu la waaw kay laal la nag bu bëggee noppalu day jël Marème taf ko ci kawam comme li ko Marème wax rek ñu jël jàmm ji ràcc ko waaw kay masbillahi mina sheytaan rajim masbillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa salaam ñu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah te di leen wax ne wax dëgg neex yàlla série bi moom neex na lool lool lool lool lool eh, wax dëgg neex yàlla bi muy doxee neex na ma lool trop parce que ah, naa ci la nga xamante ne vraiment lu déggu la ci côté Moustapha ak Racky loolu itam lu déggu la ndax Racky ci boppam euh, déggu na ne dafa bëgg Moustapha lool lool lool te itam euh, xëy na waajur nag moom par yenn saay kenn du ko mën a jegi euh, daal di def la neex par yenn saay di nga déglu ci ndigalu waajur to itam dafa demoon ba déglu ci ndigalu waajuram rek am noo xamante ne bëgg woon koo jegi parce que ndigalu waajur moom presque rek day farati saxoo waaw itam waajur yi itam dañuy war a bàyyi xel ne maanaam du chaque jour rek ñu war a xool lépp lu ñu bëgg rek mu doon lu mën a nekk ndax sunu borom mu nga xamante ne moo ñu bind ah moom lépp la bëgg jaamu yàlla yi yépp la bëgg ñu jaamu yàlla ñu jaamu ko te nit yi yépp man koo wuñ booloo bëgg ko koo bëgg koo jaamu kon nag mm, ah, waajur yi itam dañu bàyyi xel ne ñoom itam lépp lu ñu bëgg rek mënut a nekkee niñ ko bëggee ah, ñu bàyyi xel seen njaboot mi xam ne am na loo xamante ne itam Euh, day reeral njaboot euh, day tax euh, nga feewaleeg say njaboot ah, bu loolu weesoo wax dëgg ne la affaire bi neex na lool car macha allah alhamdulilah ba léegi itam wax dëgg diggante Cheikh Diagne ak Marème ak Lalla foofu noonu am na tuuti loo xamante ne mu ngi ñagas ci diggante bi mais ki waroon a defar dafay daal di yàq muy yaayu Cheikh Diagne maire bi. maire Diagne moom maire Diagne moom day yàq mais euh, moom euh, comme bu mu woowee Cheikh téléphone wax dëgg neexee la li mu wax noonu euh, du respecté kilifa bu ne moom da nga war a sam sa parole parce que ëllëg moo tax xam nga Marème mënoon naa réagir neneen nu dul noonu mais wax dëgg neexee la Marème moom kenn amul loo ko wax ndax ni mu defee rek parce que la la moom li ma gis muy wane nii daawu ko doon wane bu njëkk kon yaakaar naa ne bu demee ba bo ba Cheikh Diagne tàkk maanaam loolu loolu la ñu wax naan boo yoree benn soxna mu am nu mu demee rek demal wutal ko ñaareel euh, wutal keneen teg ci wetam incha allahu rabbi day daal di jub euh, dina daal di def ci moom loo xamante ne maanaam euh, day daal di tax mu xaw a dellu rek waaw mais mère Diagne moom war na defaraat toogaayam ci biir njaboot bi parce que njaboot euh, du noonu parce que sa doom dama yaakaar ne dina dem ba bëgg loo xamante ne yow bëggoo ko woon mais baneexu baneexu yaay nu mu saf ci yaay noonu la baneexu doom baneexu doom war a saf ci parce que itam baneexu yaay moom nu mu saf ci doom rek noonu la baneexu doom war a saf ci yaay parce que itam àdduna nit ku ne da nga war a xool xam ne vraiment euh, du li li ma bëgg rek comme li ma la wax sànq rek li ma bëgg maanaam du lépp moo mën a nekk kon nag maire Diagne di nga war a jàppale ki nga xamante ni mooy Cheikh Diagne fexe gëgganti njaboot bi euh, bu ñu ñu ànd doon benn nga waxtaan ak lala mu dellu si xelam parce que lala moom lu muy def nii euh, wax dëgg ak li mu wax noonu ñoom Cheikh Diagne ak Biram bu ñu toogee di waxtaan wax dëgg doy na waar lool kaddu yi euh, rafetlu wu ma kaddu yooyu maanaam lala fiir moo ko jàpp rek ba léegi mais na xam ne comme li ma ko waxoon sa ba passé rek wujje moom bokk warseg la mais yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafa am benn sang boo xamante ne euh, dafa ñëwoon ci moom ne ko ah man de benn soxna laa yor maanaam bu mu bu mu takkee benn soxna euh, amul dara amul dara dara dara dara dara maanaam mu nekk moom nekk ak moom boo sonn amul dara mu dem ci yonent bi ne sama soxna soosu de sama soxna de bu ma ko takk léegi euh, amuma dara manuma ba léegi itam damay gën a wàcc rek mu ne ko takkal ñaareel mu dem takk keneen indiwaat maanaam mu gën a yees comme noonu rek euh, mu demaat mu ne mu demaat ci yonent bi ne ko ah, man de sama soxna soosu takk naa ñaareel mais ba léegi de walaay amuma dara maanaam nu mu nekkoon rek la nekkoon mu ne ko demal takk keneen euh, mu takkaat keneen indi maanaam bu mu takkaatee keneen indi ba léegi affaire bi gën a gën a wàcc rek gën a yees rek euh, mu demaat ci moom ne ko ah man de takk naa ñetti soxna waaye affaire bi daal ba léegi demul fen pare itam mu ne ko demal takk keneen mu demaat takkaat keneen indi euh, bu mu indee kooku nag euh, la xiwal yi daal di wàcc ñoom maanaam xiwal yi daal di sawan baawan mu ne ko takk naa takk naa keneen di waaye wax dëgg xiwal yi euh, xiiwale na lool lool lool wax dëgg ne yàlla avancé am avancé mu ngi am moom maa ngi dem ci kanam bu baax a baax maanaam maanaam ci tënk rek ba ngeen xam ne maanaam wuje moom euh, dafa bokk war warseg maanaam gis nga ñetti jiitu nañ fi euh, dara ñëwul mu tak ñeenteel euh, sunu borom ubbi bunt yi kon war ngeen a xam ne ba ñoom ñëpp dañ cee war a jëriñu kon war ngeen a xam ne maanaam wuje moom bokk warseg la nañu oyofal xol yi rek te yaatal yaat yaat yaatal xol yi bu baax a baax a baax oyofal itam li nga xamante ne mooy sunu den waaw jërë ngeen jëf yéen kër gi nag maa ngi leen di ñaanal jàmm di ñaan sunu borom wàcc ci yéen yërmande ci barke yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. ça va si lu ngeen ne yéen ngi si jàmm ça va bien ah tey moom Marème Diagne moom taj na fi waaw tey moom sama xol sedd na buy waaw kay tey moom wane na ni ne. ah Cheikh Diagne yi yëfam la waaw kay lii laa gëm man Marème daa man moom laa gëm waaw kay xale da ngay virgule xale boo si toll da ngay xam ne tollu nga si boo ko paasee xam ne paase nga ko Marème daa moom laa gëm laala nag wa dëgg fa yàlla war naa mën a lafita tëri te may Marème sansam lii lan la nii ah dëgg fa yàlla na jël sa ay jël sa ay morom dafa mënta nekk lii rek am si li ma doon wax. salaamaaleykum salaamaaleykum maîtresse ñuy naan ñëpp ñi nga xam ne nii participation yi moom macha allah am na solo ñoo ngi nuyu ñëpp di tatagal ñëpp di wax ne ñëpp ci weeru koor bi yal ñu yàlla defal koor yi nga xam ne moo gën a kawe ci koor yi yàlla may ñu jàmm senegal ñu àndandoo xol tarta xol yi ndax tarta xol yi tamit lu am solo la daal lu am solo la kenn ku nekk ak sa gis-gis waaye kenn ku nekk ak sa gis-gis moom jëtt a considéré waaw ndax fii moom film yi yaakaar naa façon film bi ñu nekk ngi fi waaw ñu di ko teg ci chaîne yi ñu di ko ñu di ko seetaan kon lu waaye lu loo xam ne ni yow concerné la rek concerné na sa morom xay na mu cay gis boppam kon bul critiquer loo xam ne nii wax dëgg yàlla man de gisuma ci benn dara dara dara dara loo xam ne nii daal ah, am na am na jafe-jafe xanaa loo xam ne dañuy kontaan loo di ñu bég loo am ci côté yoo xam ne tamit da lay delloo si ci lu baax ndax tey mareem tey def nay fi nit dem na attaqué Lalla xuloog moom récupéré waat jëkkëram ànd ak moom génn dem yaayu Cheikh woolu ko bu doon keneen danaan duma dem parce que yaayu Cheikh xas na ko xasati ko wante moom dafa daal di volontaire dem déggu lépp yaayu Cheikh wax ñëw mu diglu ko mu wax ko la ka neex mu pare mu jël loolu lépp recouvrir ko téye ko ci xolam macha allah mi ngi sëy de mareem rek mi ngi sëy waaye làmbañ bu ma moo raw fett fett subhanallah laa ilaaha illallah ah mareem sa làmmiñ bi day raw ji jinjeeri takk moo ko raw de moo ko raw ah Moustapha nag damaa bëgg mu bàyyi sama mu baal sama xarit bi na ko baal rakki rakki na ko baal xam ne rakki moom problème mi ngi ñëw ci ci kanamam ndax papam mi gëm naa ne moom bis bu xamee mooy papam affaire bi dina gën a doy waa ci moom daal na ko jàppale rek na ko jàppale te xam na rek moom fi mu toll nii ba mbëggeel gi dugg na ci moom rek moo ci xuus xuus ci rek ba mu jeex tàkk waaw na ko jàppale rek ndax moo ko ci dugal moom Moustapha moo ko ci dugal nuyu naa ñëpp. salaamaaleykum wa maa ngi nuyu yéen ñëpp maîtresse d'un homme ci site bi man de li may commentaire tey en fait Marème moom dafa exagéré moom vraiment dafa waroon am classe ñëw kër laal la bëgg bunt bi ne di laaj ay ay ak yooyu ku am personnalité vraiment du def loolu laal la moom am na personnalité ndax mu nga toog këram mais laal la moom deful dara côté boobu kii moom moo tooñ mu tudd. cheikh moom moo tooñ yow ay nga ci sa aawa ñaareel bi demal toog fa waroo ñëw si aawa bi coow lay indi jaxasoo moom mënul jël responsabilité moom vraiment moom daa cheikh daal moom dafa dafa kii dafa amul personnalité moom moom foofu moom dafa ñàkk personnalité côté boobu moom vraiment parce que mënul na jël même bu fekkee kii da ko jël si mën na ko génnal dina ñibbi si kanamee mu reer reeram yàq reeram xeer reeru jàmbur ah en tout cas moom Marème moom nit du def doxalee noonu amul personnalité personnalité bu ne woon maay moom sama kër laay toog xaar ko bu ñëwulee ma bàyyi ba mu ñëw ci ëllëg sax mais duma ko fekk sama moromu jeeg ma fekk ko ba këram fëgg ka naan ñëwal sama kër man maa aye ñàkk fayda ba bëggalee Hm? loolu laa am la ma ci bi nu muy waxee noonu moom du wax ju rafetul daal nu muy waxee daal c'est pas du lu rafet vraiment rafetlu rafetlu wu ma ka daal dafa xew yi daal dafa dépassé yooyu daal moom dafa war a mel ni laal laal dafa am personnalité moom waa mu ngi toog këram jàppal njàmburam waaw. waa maîtresse maa ngi leen ci loo nekk maa ngi ci jàmm ça man ci Marème laay wax Marème daal dugg na ci sëy bi ba pare nangu ko sëy sëy bu normal man su ma sañoon ay caprice ay affaire yooyu muy def noonu yépp na ko bàyyi. parce que rôlam bu tey moom man neexuma dara dara dara dara dara wóor na yàlla rôlam bi tey dara neexuma ci Marème mm, du jigéen buy sëy parce que jigéen buy sëy am na yoo xamante ne danga koy muñ di ko daw mais Marème li muy def nii ah loolu moom man kontaanuma ci waa kay merci asalaamaaleykum ah, ah, waa panel bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen laaj seen jàmm seen jàmm yaram di joxe waa sama participation rek ci film bi ah film bi neex na neex na neex na neex na lool sax Marème moom moom wax dëgg yàlla naa ko parce que noonu la war a doxale daal parce que seex ma reem su ayee daf ko war a jox ayam ba mat laala su ayee daf ko war a jox ayam ba mat loolu mooy dëgg ah, ah mu ñëwaat ci Moustapha tam ak rakki Moustapha ak nu mën a demee rek dafa war a taxaw déglu rakki parce que rakki def na erreur benn fen na ko ñaar dem na ci invitation bi te wër fa woon a dem da ko waroon wax dëgg waaye Moustapha na ko may sansam taxaw déglu ko daal ba xam ah kontaan nañ kontaan nañ maa ngi di nuyu yéen ñëpp di ah, salaam salaam ziar naa leen bu baax a baax a baax waaw Amadou Tall moo ñëw di ziare waat bu baax ne film bi am na solo am na solo macha allah waaye Marème de sama xarit la ci film bi mais tamit euh, nu mu def moom vraiment euh, xaw na ma euh, touché quoi waaw dëgg yàlla waru woon a menacé waaw dafa waroon a ànd ak xel mu dal wane mbaaxam. waaw ba ñu xam ne yow mii kat dëgg la jabar nga mais am na muy demee mais dëgg la am na fulla ci côté ndax tamit mi ngi wane na ay gi moo ko moom mais tamit euh, euh, xam nga lu ñuy wax wujje wujje dafa métti quoi wujje moom su méttee rek euh, daanaka nii lay demee mais tamit Jalika Jalika moom instant bi maanaam man sama xalaat bu bopp. lu ko dal ci biiram rek euh, moo ko teg boppam ndax euh, am na nay doom mook biiram mais tamit mën naa góorgóorlu sëy mais gis nga ko bàyyi na biram dem di génne keneen léegi nag ki nga xam ne mooy xaritu Jalika moom su ko neexee moom instant mën na mais tamit euh, du dëgg du xarit ci côté boobu noonu ndax tamit mbëggeel moo ko dal ci biiram ndax dëgg yàlla di jàppale biiram far biiram tamit dal di koy wax waxi mbëggeel ba mu far ndeysaan mënu ci dara loolu dina dina métti daal su ko is liggéey rakki nag moom yaayam xaw ma lu mu demee si ñoom ñaar mais tamit yaayam mu ngi koy dugaloo ci loo xam ne tamit vraiment jaaduwut quoi waaw su ma sañoon tamit euh, affaire bi daal neex na macha am na solo waaw neex lool am na solo dëgg yàlla ku ci bëgg a jëriñoo mu ngi ci jëriñoo ku ci bëgg a xam dara tamit nga cee xam ndax day yeete daal waaw tamit euh, nit ki daal mën ngaa ne ci ay SRS soo seetaanee tamit sa xel sa ak sa xol mën na gif ci lu bëree bari man daal macha allah kontaan naa bu baax a baax a baax. salaamaaleykum ci la ngeen nekk dama bëggoon a participer ci série maîtresse bi tey ci seetaan naa ko bu pare mais neex na neex na trop tey daal Mère Diagne rek laay critiqué Mère dafa jàng torop dama koo sax yéram mais en tout cas mooy xorom si Cheikh Diagne moom Marème mooy seytaaneem man moom Marème dama koy wër ah voilà mais jikkoy Marème damaa neex ma sañoon ñaari bu mel ni laay am su may am <laughs> parce que dama koo bëgg gëm naa ko lool man ak yonent bi waaye kenn du biram way biram biram ñi lañ koy bàyyi <laughs> biram laal na laal la laal la day gonfle rek jàmmam jeex na dootul amati jàmm ba ma dem dugg see ci làng la jàmmam jeexoon en tout neex na torop tey moom kenn amul lenn looy wax lu dul bëgg barki yonent bi asalaamaaleykum yéen waa Série Maîtresse nuyu naa leen ci lu ngeen nekk bàyyi nañu ci jàmm man de série bi tuuti rek laa am ci lu ma ci wax c'est que man ni ma jàpp ne Lalla moo tax mu ngi comprendre ne Cheikh Ndiaye tey li mu ko def dafa rëy ndaxte bi muy bëggantee ak Marème sa mun te ñàkk a def jëfam ju ñaaw jooju noonu ak mooyam googu mu defee ko faneen mën na ko defee faneen fudul ci biir këram dem nag ba ci digg lalu mm, lal ba di ko fa defee man kontur naa loolu mm-hmm. parce que loolu tamitam du respect parce que ak lu mu mënti doon du respect parce que tamitam loolu neexut laal la mu dem ba xamal boppam loolu ah xam ne kii wujjam la ah faa ngi koy takk lalam bii nii seeq na fee jëkkëram lu ne ah neexul ci xol nag nañ waxante dëgg man looloo tax ma jàpp ne lan la du gaaw a accepté seen sëy ñoom ñaar mhm. c'est que nag neexut bu fekkoon ne defee na ko neneen sax du garaaw bu boobaa lan la mën na ko accepté ndax lan la mu ngi doon sëy sëy bu rafet te woon na jëkkëram amoon nay feem macha allah kon jëru muy teyit wujje ndax wujje du dara boo ko war sa kase la nañ leen boole ñoom ñaar ñu ñëw si kër gi sëy mu defante ko ba mu neex macha allah neex si jàmm sëy toppatoo seen jëkkër ah man de loolu laa gis jàppale seen jëkkër waaw comme que lii am am na ba pare mënatu ci dara fi ñu toll ko bàyyi rek mu seere waaw loolu laa gis daal ku nekk xam sa place fan la féete waaye moo gën yi yëpp amul benn sens kontaan naa trop nag ci série bi macha allah mhm. neex na ma trop. waa salaamaaleykum wàllu xew tv ça ci loo leen nekk mbaa nañ ci jàmm waaw comme d'habitude rek tey série bu tey bi seetaan nañ ko bu baax te j'espère kenn ku ne am am na luñ ci jàngat waaw Cheikh moom. comme ni ma ko doon waxee rek comme moom nee na dafa topp yoonu lislaam li takk ñaari jabar ba ñeent na ko teg ci yoon kenn ku ne li nga moom mu jox la ko waaw la man pour mu gënoon maa neex man dama bëggoon Marème nu mu ñëwee noonu di rëkki rëkki di seeyi seen kaw di sekki seen kaw nga bàyyoon ko mu sekki ba noppi nga bañ cee wax tooy na bañ cee wax wow na bàyyi ko moom ak jëkkëram ñoom ñaar nekk di wax nga waroon maye pat noppi billaay loolu moo may gën a neex comme say nee na moom yow danga kaa tëkku woon nga ne du musa takk du takk moo taxit mu gën a am fit mu dem takk moom mare moo ngi nii di ko tëkku mare moo ngi ni di ko tëkku dem na ba di ko ñaan baat ci kanam ay invité ci kanam ñëpp loolu respect la te ñu ne Cheikh dafa war a takk ñaari jabar parce que l'islam a ko wax lislaam dafa wax ne jigéen danga war a yéeg sa kaw jëkkër waxu ko waxu ko lislaam dafa santaane ne jigéen dafa war a tëdd neex na nga tëdd metti nga tëdd ñu joggi sa kaw est-ce que Marème référence la ci ñu ko ñi ci ñi nga xamante ne ñoo ngi topp si ginnaawam ñoom ñoom ñu ne nee na nee na Marème référence la seen référence la man de Marème du sama référence lan la nag continuer di mayee pat bi nga doon may sa xarit bu keroog bi lu mu la doon wax topp ci bu baax boo ci amoon ñaari xarit ñu mel ni kooku ba ñett billaay di nga xam ni ngay def te dara du metti topp ci bu baax man nag moom bëgg naa la sopp naa la waaw ndax danga teey danga dal ah, Moustapha nag waaw rekk lu mu def metti na torop mais nga dawal compréhension aussi dawal ci compréhension nga comprendre ko seen ànd moom neex na macha allah seen ànd neex na rafet na ñëpp a ko rafetlu mais dawal ci compréhension tuuti rakke nag toogal su ma doon yow damay naan dëj toog duma dem fenn mu ne boo paree nga tëjal ko bunt bi nga ne ko duma dem naa fanaan fii nii waaye duma dem nit moom foo bëgg nga fa dem ba jeex meer bi nag moom ak Bakary Sagna Bakary Sagna sama papa la waaye duma ko sopp fenn duma ko sopp fenn moom dawal doxal na àddunaam bi ba mu ngi ci fin na bàyyi rakki doxal bi lan la te am na lu luus diggante meer bi ak Bakary Sagna yi nag xam naa ci kanam dinañ ko xam ndax kon ñoom xamante nañ yàgg ñoom xamante nañ bu yàgg joor moom man dama koo ba lii la ñuy wax mu lancé waat encore benn message ci bépp geeg buy sëy sa xarit muy ñëw di la naan demal pour nangu lii bu nangu laa moo ngi nii joor moo ngi nii di di doon conseil Jalika naan ko bu nangu lii sëyatuñu sëy bi nangam nangam ba Jalika puus randu moom moo ngi nii di si ñëw dugg joor man joor xàmmeetuma ban genre nit xaw ma xaw ma ban xaw ma naka sa naka laa koy qualifier je ne pas mais daal bépp jigéen buy sëy war ngaa xool ci lii nga jàngataat sa àdduna bu baax nga xam naka ngay def parce que xarit yi moom ñoo ngi nii de moom nga ñuy gis nii man daal ba ma sañoon bépp jeeg toppal ginnaaw laal la dëgg la nag wujju moom kuñ ko utal ku ne du la neex mais benn abs de rek lay def nga reprendre waat sa vie sa vie reprendre sa vie nga xam li ngay def liggéey ngir say doom nga xam na nga sëy ngir yàlla rek tax sëy nag day dem ba benn instant dangay sëy ndax dangaa bëgg mais bu demee ba yàgg dangay sëy ngir yàlla rek tax waaw man loolu daal lay wax asalaamaaleykum nuyu naa leen ah waa série maîtresse seen série bi neex na macha allah macha allah ah Marème bëgg naa la mareem daal yal na la yàlla defal cat macha allah daal nii laa bëgg ñaareel da ngay jonge gëna la yokk jonge bi nag nga gën am caaj am sa fula bu la kenn yépp awey nag suñuy yaay lañ suñuy mag lañ suñuy rakk lañ suñuy kii lañ mais dañoo fiira fiira fiira fiir ba du lekk fiir awey te ñoo régler seen bopp te xam ne ñoom ay mag lañu ñu def ñu ay rakk def wala ñu def ñu ay doom mais duñ ko def dañuy sàcc ay jàmbur wala boo ay ñu ñëw sa buntu nekk di karaas karaas yi yaa ma xam daal man maa ngi nii ñaareel laa waaye la yàlla xam den aaw bu ma fat bu ma sonal waruma ko wax sax ndax aaw moo ma jur mooy sama yaay waaye nag fattaate nañ sonalan nañ soo ayee seen doom yi duñ leen régler benn place yow dugul dema ci sa papa dem ak yow soo aye nga téye sa doom ah man daal jaaxle naa mareem daal continuer yal na la yàlla la fal cat man daal bëgg naa la bëgg naa daal ci xale ok maa ngi jéggulu nag bu ma si juumee benn baat asalaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié maa ngi leen di nuyu dafa bëggoon participer ci épisode 36 bi tey waa di njëkkee nag ci mareem Marème moom man nekkuma aawo nekkuma ñaareel célibataire la mais lu may ñaan sama àdduna mooy que nekk ñaareel mais Marème man tax na maa bëgg a doon ñaareel d'une part bugg bugguma doon ñaareel ndax moom ndax des fois dafay manque dafay dafay yàq dikko jigéen comprendre que seen film bi soo gisee nuñ ko joué nga war a xam que ni jigéen dafa war a toog place ba jëkkër fekk si ko fa mais paa fu nekk mu fay nekk di dem ak moom tout ça voilà euh, léegi nag di wax ci biram biram moom osé na def na lu ne musuma gis ko mel ni biram joor moom gëm naa ko ni moom ak xaritam bi seen ànd dootul nekkati ndax bu xaritam xamee ko ni jëkkëram moo ko nar a takk euh, loolu diggante bu tas la te loolu mu ngi fii Sénégal bari fi trop genre yu mel noonu man mii dama part dund naa ko moo tax bi ma ko gis seen seen série bi dafa mel que ni comme si que man lañ ko joué ndax dund naa lu mel nii voilà euh, léegi di wax si kii nu mu tudd Lalla Lalla moom su doon man may moom yàlla may ko xolu ndax Mare moom mooy moom mooy takkantaanu euh, Cheikh Diagne Mare mënul dem sans Cheikh Cheikh tam aussi mënul dem sans Mare des fois gis jigéen ak góor ñu nekk. Euh, lakkal dafay am diggante boobu te mu ngi mel comme Marème ak Cheikh seen diggante genre lakkal maan la Marème daal dafa lakkal Cheikh toppee na ko côté bu nekk mais Marème que moom moo bëgg nag na mu na nangoo dékku nangoo dékk parce que sëy moo mel noonu voilà loolu laa mën lu ma ciy participer bu dëngee si man la su baaxee si yàlla la merci